xam nañ ko xam nañ ko seen yaram yëpp dama ko yàq gisoo suñu booy bi. booy bi. yaram yi daa daggoon gémmiñ bi. ah gémmiñ dafa daggoon. waaw. may mar deret. ngay mar deret maanaam deret bi daf lay may doole wala. ah bëggoon mu bokkaale ci tuufaale bi ma waxee ñëw ci yow. si bokk yi gis ngeen. wul du taaya. dina garaaw la waaye nag loo garaaw garaaw sa seefa la gën a garaaw. ku mën sa seef moo la mën moo la gën a gaaw. dugum tànta ji nee na fii mooy fii mooy kër geeg ñëw bu doon ni ngeen ñëw leen. gul na ñëw. gul fii nii baax na waaw. waaw ah. na gaa yi ah. Ah, waaw waaw dinañ ñëw. mbokk yi gis ngeen c'est grave jigéen bi nga expliqué nii lii comme film dafa grave noonu la amee barki démb la ma woo di wax di wax ay affaire léegi nag ñëw nga nga ne waaw ñaata yoon waaye gaale bëri te du moom mooy paase sama ak yaayam bi ak yaayam. def na yonent bi. waaw ak yaayam. ak yaayam. ñu ñëw mais bi ñu ñëwee sa benn dëkk nii kooku gisuma ko fi. mu lañ ko fekk ñu ñëw mu ñu dàq. ko sii yaay yaay kii booy bi ñu ne ko sii waaw dàq. waaw mu ne yéen da ngeen a naajee ñëw 11 heures nga ñëw xam nga oto bi ñu yéegoo oto bii waaw pourtant day am allo Dakar nag ñu daal oto bii wër koñ bi kan moo waral loolu ah gars yi am ah, na bul dukum bul dukum boobu daa ruux boobu dafa ruux waaw boobu dafa ruux boobu daa waraloon pour oto bi réer daal pour oto bi yeex waaw ah, oto bi yeex oto bi yeex mais tamit bi ñu ñëwee ñu ñëw mu juddu waaw ay ay ay lan la ¿eh? ah. ñu recevoir ay muy dénni man daal bu ñuy jógee sa kër moom di jëli ji biis yi jëm Mbàkke boobu ay une heure jot la ma xam ni ko ay ñu wee dénni lañ dugg ci la buñ duggee ñaar ñu xool waa gis boobu boo ma xoolee xool naa la sëgg ñu daal di sëgg ñu xool la daal sëgg jubóo boobu ñu kan moo waraloon loolu non boobu gars yi yoon ñu woon mat xam nga te yow parfois dangay laaj ay cinq yow maire bi bëgg na rek maire bi mu koy gis mu dem bopp am mat teggi cinq cent mille yii ca Thierno laaj nga saison danga koy xëcc di ko xëcc di ko xëcc di ko xëcc comme dese deux cent cinquante mu ñëw ci yow mu ñëwee nga ne ko deux cent cinquante naa koy xëcc yéen a xëcc xaalis bi bi koy tuxu si fii mère bi booy bi la ànd booy bi ne ah booy bi nga dugg nii waaw moom la ànd ñëw mère bi yoroon cinq cent mille xaalis bi page bi dem ba def deux cent booy bi dig saytaane temps yooyu yorutoon. booy ah. muy soxla téléphone mère bi ne deux cent yi de bëgguma koo toj ñu ciy paas te bëgg naa buñ demee ñu am lu ñu ndékkee booy bi jaay téléphone bi ñëw jox ko mère pour mu paas fan yi ñu fiy def ñu ñu def ci ay ndékki yooyu noonu mais terewut bi nga ñëwee. nanguwul maire bi rek dégg ñu naan Thierno Tisse tamit photo mi foo ko def jimmi du fa nekk maire bi góob bi ci photo yee kii moom kër gi foo leen nii yem ko Thierno fay heure su ma roccee photo yi mu defaat ci photo yi cinquième yoon man mu dem mu wutal booy bi t-shirt t-shirt ko koy gis day xëy gis kooku yaa ma gëm yow kii li nga mel ci yow gëm kii heure demee mu résulté la mënoo gëm xanaa sama yoon nekk ci de te léegi nag man moom neewoon naa ndox mi ma waaw xam naa li am keroog dimanche moo tax paa bi papaam jóge daal jóge fii démb di altine démb la altine jóge fi démb tey di fajar mën nañ ko yóbbu mën nañ mu dañu garaaw si gerte damaa bari waay mu naan ñetti ceer mu leen sax

gis nga tey fi nga mujjee jàkkaarloo Thierno Moule wiiri wiiri jaane laa bi sa chef laa njëkk dem ne ñiix téye euh, kii a ngi fi tamit Ahmada xam nga Ahmada wala xamoo ko kooku moo ngi fi naa wàccee kooku non kooku kay wàcce na daanaka ah. tuub na ba pare maa koy war a génne ah. kooku moo des ci la fu mu nekk tuub na mën a bokk waaw yow bi nekkee ci tuubal gaa yi. waaw mais dalaa fi nekkee. Hmm. tuubal gaa yi rek di leen dugal ci siraatal mustaqim. waaw moo des moo des bu baax la moom. loolu baax na moom bu baax la. bu baax la de ah. ah waaw. siraatal mustaqim kan mooy yoonu baax. ah léegi yéen xam ngeen loolu ba pare ngeen di def affaire banditisme. suñu ñun kii bi. waaw. bu baax la. waaw.

loolu daal jigéen ju baax set rek. am ñu ne tey jii nii góor yi léegi bu caaxaan jotee hmm. dañuy ànd ak jigéen jëy caaxaan. bu caaxaan jotee. waaw waaye bu am jamono jotee jigéen jë toog ca wetu hmm. la ah? hmm. ngeen jinne bi wax na fi dëgg de ulu taaya. nee na ñoom jinne lu baax rek lañ bëgg. dugalu lu bon mbokk yi lii yéeme na gis ngeen histoire lay expliqué fii lii dafa baax nit ñi déglu lii dafa am solo bi ñu protéger leen ah. seen xale yi ñu jàppale seen waajur yi ah. seen papa ngi jëm ma seen papa ngi jëm boo waxee mu ne bu leen jàng kenn kenn ngeen mu ne ma dinaa ko dijjanti jox leen mais seen papa yéen a yéen avenir dina yàq liggéeyam du yow xam nga ci dara wala xamoo ci dal waaw xam naa dara kay waaye nag bu noonu daa kii noonu nag daa dafa amul xol dara wala ah ah xam nga man nii li may bon bon parfois damay damay liggéey papa moo dem ba tëj usine bi tëj entreprise bi tëj société bi pour rek bu papaam am lu mu a fajee xale bi. moom yow foo nekkoon. non xam nga man bul dugg moom moom moom moom la mag. ah bul dugg moo la mag. bokk yi dégg ngeen loolu que ni yéen Mbàkke mooy seen base Mbàkke ngeen toog daal. suñu diwaan. Mbàkke lu tax avancé wu. xam daal yéen tax avancé wu. ah, ah. ah. bi nee naay nelaw. yéen may tere nelaw. gars yi dañ lay escanté rek waaw. ñoom ñoo may escanté. ah di toog nelaw nii. waaw parfois ah. tamit loo nekk nekk ak jinne parfois tamit sa jëmmu nit day ñëw. Hmm. tamit ah nga jox jëmmu nit bi ah tamit. waaye hmm. toog ci jinne yi sopp ku nekk. rek day aar la ñëw. <laughs> léegi nag yow tey da dee tuubal nga nga daal toog fii nekk ci wetu udda uddakum gannaaw sa sa sa seef la sa nga toog fii nekk fii di ma liggéeyal doon sama taalibe nekk ci wetu gul dëkku mooy xalaat de damay ñëw yow pour tuubal la nga nekk fii di liggéeyal Thierno Moule Sow doon taalibeem nga génn ci xale bu jigéen bii nga bàyyi ko mën a jàng réussir yàlla mën ko may mu am borom kër bu baax. kii ñoom da ngaa tàng tàng. waaw moom nag dafa naqari dere. lan moo tax mu naqari dere parfois. parfois dañ ko koy def rek dañ ko koy def mais kii dafa baax. moom baax dafa mën a rëy. day rëy rek. ay yenn saa yi daal wax ay xarit ñu naan ko. ay wax kay jaa xanaa yow fu la nit seen sa bëy yi lay gis. waaw waaw li ngeen bëgg nag may reetaan.

bu mujjee seen dañ koy def pour rek. dañ koy rek pour pour nii rek daal wane seen bopp daal. Hmm, non ku wane seen baat rek. Ah. boo koy jinne bi macha allah. Euh, c'est grave. bul du taayaa. jinne bu garaaw la. ci booy bul du kumi la bokk. waaye tey wàcc na zéro fu mu nekk nii macha allah. keroog ne la wax ci tey ba mu ñëwee di dëgëral mais gis nga à la wàcc na moo waxtaan xam nga jinne yi noonu la léegi nag mu tuubal la d'accord yow jullit nga wala doo jullit ah doo jullit doo war doo jullit doo war lu may def dara lu baax def. dara lu baax. moom du def dara lu baax. jullit la waaye du def dara lu baax. muy du taayaa. ban lañu lañ jot ni ñoo ngi fii cinq heures cinq heures quarante cinq heures vingt waaye foog ma reeri jël naan lowal deuxième parce que yow damaa xam ne bu ma reeri jiwul tey du ma reer parce que fan yëpp du ma reer damay farce yéene def reer ndekki laay def du reer mbokk gis ngeen ñu maa ngi ci ñaar maa ngi ñaari iPhone 11 ak benn bu 10 iPhone yow oui. looy uyoo iPhone. waaye jox ma iPhone nii tamit ah. jinne day uyoo iPhone. oh yéen man yéen yéen ñu teg yéen. ah ma yaakaar ay jinne ngeen rek kii ma koy ñaan ndox mu naan ndox am. kan kii waaw ana Moussa. moom mii la ah. mu tege fii maa ndox ma ko ndox am ma ne ko kur bi amul ndox. ah da doon daan ñaan ndax nga ne ko ndox dangay naan nii wala. sa bopp may naan waaw. may ko nu jox ko may ko ndox mu naan jox ko sa ah jinne bi nee na ma may ko sama iPhone. instant bi am naa ñetti iPhone ñaari 11 Pro Max ak benn 10. waaw. maa ngi ñaari iPhone ñetti iPhone kay. ñetti 11. iPhone bu ne 1 million lay jaar. bii démb rek lañ ko jënd 1 million. démb laa ko jëndee 1 million bii spécial pour WhatsApp rek. fii moom pour whatsapp la whatsapp rek laa ci def yeneen yi ci la ñuy may ko iPhone loo koy doy. nga may ko booy bi tamit. nga may ko yow nga kale booy bi kale wërsëgam yëpp yow kay yaa ko war que yow yaa desee ci moom ak moom booy bu du am dara yéen jinne lan moo tax yéen yéen da ngeen ñàkk wërsëg ba tax ku am wërsëg ngeen dugg ko wala lan xanaa yéen mënoo leen am jom doxal seen bopp ngeen bañ a dugg nit ñi wala yéen saa ñii ñi doo leen dund yéen wala yéen ñoo leen gën ba na foog ngeen dugg nit ñi ngeen mën a dund ah ñu naa sax ni nit ñu gën waaw. Ah, ah. ah, moo tax ngeen dugg nii ñi ak bare ñun ak yéen ñoo ne ñun ak yéen. dëgg la. ñun ak yéen ñoo dëkk tamit il faut parfois ñuy kiiwante dañuy gisee ay niir waaw dana ko kii tàkk kii kii tàkk kii am ci doom mu am doom yu ñu def waaw xale bi amoo moom doom de ah. non non xale bi kii kenn mënu am ci moom dara. ah kenn mënu am ci moom dara. donc gis ay mais yow am nga doom wala amoo doom. Pape non man aw ma man man man man man ay affaire yu ñaaw yi kii ma ci. mais waaw mais paa bi moom. waaw ah. kii eh, paa bi dafa sonn guddi. mooy paa bi mooy kii. beneen jinne bi mais mu ne am na beneen jinne paa la mais paa boobu moom ñàkk na fay dara. Ah. waaw jinne la de. waaw dangay dégg maa xam xaaral mënoo maa ko. ah dafa. paa ko nag ay du wax day ŋaañ ñaaral rek ñàkk fay moom la. moo bañee paa bu ñàkk fay. léegi yow boobu day fekk yaay fan. waaye moom lu sama yoon man lu sama yoon néew sama yoon néew. ah kon da nga isolé wu bàyyi leen ñoom ñaara. waaw booy bi na ko wan ni fii doo fi am dara da koy def. yow doo jàppale booy bi wala paa bi moo la mën. sama yoon néew ci. da ñëw génn après da génn bu paa bi ñëwee rek da génn taxaw fee. ah man mooy la ah. Ah, ah, sa diwaan fii ci sa hmm. nga bàyyi booy ñuy jaamaanoo fi sonnee dañuy ñëw ba dugg waaye bu dem di

waaw léegi boppu xale bi fan lay seetaatee man laaj laaj ak jiiree nii sa booy laa koy jox ñu raxasal ko boppam bi. booyal. jigéen ñi kër gi fóotal ko ñu ne ma boppam bi. nga bant yi. Thierno ñu la ko defaree. xaw ma. ma ko wax nag eh bëgg di xam ci nit ci ci ci kii ci jinne yi te jinne yi du la xamal dara lan la. jinne yi duñ ma xamal dara. Ah, ko de. <laughs> parce yii moo leen di defal bagage. vite fait daanaa ko dégg. vite fait yaay naa vite fait bien fait. waaw. yàlla tàmpale rek. waaye yow nga bien fait xam nga vite fait. ak cuuraay. cuuraay. folka. folka ah. yow Sénégal ngay indi volcan yow. Sénégal ngay indi volcan. waaw ay Thierno ñaanal ñu jàmm. fii indi ay. macha allah c'est grave. expliqué na fii lu bari sax. bandi la nag xam nga bandi ñoom boo leen xasee ba jàpp. ñoom dañ lay wax lépp lu nekk ci ñoom naba maaya ñoom. macha allah ñoom ñoom moom boo leen xasee ba jàpp. ñoom lépp lañuy wax. sànq maa ngi doon wax. yaa ngi doon. lox fan ci néeg ba. fii kay yan bu ñu toogee fii mooy xale bu jigéen boobu njëkkee daaw. waaw yaa ngi doon lox. waaw mu ngi si waaw rek. yaa ngi doon lox. non ko lox muy bàyyi. waaw moo lox bàyyi. fii loxaat bàyyi. Ah. pare. ñu génn di di jënd. waaw ñu bàyyi waaw. boo ko ko defee danaa sedd. danaa sedd. waaw danaa sedd. doole bi lañ doon wàññi. non boobu dama doon dem ba mu ñëw. dama doon dem di ñëw. ñu génn génn ñu bëggoon daw wala. léegi léegi lii damaa bett nag ci ay nelaw lañ ma jëlee. dañ laa bett. Mm-hmm. dégg ngeen kon boo koy gis ngeen jinne bi développé na lu bari ul du taaya jinne bu garaaw la ul dëkkum daan wax turam daan na du taaya ul macha allah c'est important développé nag lu bari sax ba nit ñi comprendre nañ moom ak Boule de Koum groupe lañu woon ak ñeneen xam naa di def tojaange ci Mbàkke Bawal ñoom ñoo rey Mbàkke moo tax Mbàkke rek mënul avancé waaw léegi moom xam nga ne macha allah Ould Taya dégg ngeen li mu fii yëpp wax na fi lu bari lañuy gën nañ xam gën na confirmer Boule de Koum lu mu fi doon wax macha allah moom ak bul dëkkum ñoo doon ànd parce que kooku mooy seen seet yàlla def na kooku ci kër gi lay yeewoo macha allah kon nag dañuy sant yàlla jëm ci yonente bi dëkk te heure baa ngi dem six heures du matin léegi lu jot léegi macha allah kon ñu daal di lay tuubala ah. wul du ma daal lay tuubal nga ne non non dellu sa diwaan yow kay yow ak yow ak yow yow waaw non mu bàyyi nga ne. kay téye ah, téye naa patron. waaw ah. bàyyi booy yow mu neewee. booy kay duñ dem. gan gi gan bi yëpp laa bëgg téye fii ci kër gi. naa bëgg mel ni FBI. FBI. <laughs> mu ne dama bëgg a mel ni FBI. waaw yow da xam ne waa FBI. booy dafa gudd ay genre ay FBI yooyu liggéey ci façon yooyu di ay baat. yow fekk ay affaire ay wàllum fajum jigéen ay gynécologie yooyu. dëgg la yow. nekkoon daaw di yàq hmm. ren orienté nañ ko foofu. Hmm. mais mais mais bu defee bag bi dina am après. ah ndax dina am. waaw. dina am. boo génnee ci dañ génn ci yoon te nga te ko ay ñaan. Hmm. paa bi nag. paa bi. nag ñu ne. non nga des. Ah. dégg loolu jinne gis nga jinne mbokk la ko nit du lijjanti leneen boppam lay lijjanti waaye bu doon nit la day lijjanti keneen bàyyi boppam. maanaam day lijjanti lu yoonam nekkoon. waaw day jéem a dugal kay jéem a rëcc gis nga moom mu faalewul lijjantiwul paa bi bu paa bi ñëwee di di kurtu karta moom day dem taxawi ne bàyyi ko moo tax ñoom foofu lañu uti ak ñun daal ñoom lu seen yoon nekk rek waaw lu seen yoon nekkul seen yoon nekku ci macha allah kon yow xaaral ma daal lay tuubal mu mun a nekk ci ñeneen yi yow ñu tuubal la bu ko defee yow nga nekk suñu taalibe nga nekk fi ak sa patron su ko defee banditisme bi jeex yow mun nga xeex waaw ah, kii kay mun na xeex ndax nga ne dóor nga kee dóor nga kee are xaw ma lan ak lan ngay wër paaka pour jàmm est bu ñu bàyyi woon da nga leen doon jàmm. Hmm? bu ñu defuloon défense da leen doon gaañ. ñun loolu boobu. ma leen wax bàyyi leen aw maa yéen problème. waa ji ma war a fekk ci laa amal problème génn leen mais xam nga rek ñu may jaay affaire xale bu góor te doole. jinne yaa leen bëgguloon gaañ cent pour cent. non non non non leen woon gaañ. ah da ngeen bëggoon bàyyi la daal. waaw bëgg a yàq. après nga bëgg leen woon affaire leen nag waaw du taaya dégg nga lu macha allah mbokk yi léegi ul du bàyyi mu tuub loola bu ko defee yow nga installé ci kër gi d'accord yéen bëri ngeen nga Mbàkke ay bànd yi bëri ngeen wala. non Mbàkke temps yi daa yëngu sax. lan moo yëngu lu tax mu yëngu. Ah, gaa yi ñuy jàpp nii. gaa. yi xam nga gaa yi ma yor ah. gaa yi gaa yi ngay moo tax mer naa dañuy yokk li naan def ak temps yi daa de Mbàkke dafa dañoo yëngu waaw kii affaire yi sàcc yi temps yi dafa kii dafa dafa waa temps yi dañoo gis rey bi dafa bëri dee bi même Kaolack am na ku ñu rey foofu ñu coroti ko ay jaas te kooku defe naa américain la nationalité américain la yor ñëwoon fii nekk Kaolack ñëw foofu ci macha allah ci imam Assane Cissé yàlla na ko yàlla yokk leeral léegi mu nekk foofu Kaolack fan yii dañ ko corote jaasi moom ak doomam xaw ma ak pàppam ba moom ndeysaan dafa mujj làqu. bàyyi lu tax dee yi bëri lu tax agression yi bëri ay la wala ay jinne la ah, yenn saa yi tamit nit ñi dañuy tamit tooñ de. dañ leen di tooñ. waaw nit def lu ba ñu naan ay ay laa naan fekk du rab. fekk du rab fekk mhm. am na ñoo xam ne dañoo judd rek la. fekk na lu jinne yi nit ñi la.